laqil lisaani waxlulan minhu lumuqad wajalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam yaa xayra dayfin ata bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi inni uhibuka yaa shahra siyaami bila gisin fa ahlan wa tarxiban bila adadi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 Eh, eh, ni Serigne sunu yaakaar daan waajale koor gi tey kon ñu fas yéene andi lan mooy koor ci boppam ak sart yi tax koor war jullit bi ak sart yi tax koor wér ak kañ lañuy koor maanaam kañ lañuy woor eh, woor mooy asawm baatub arab bi li muy tekki rek mooy muñ dara ngir yàlla al imsaaku wal kaffu an shay loolu rek mooy koor ndax bu ñu demee ci alquran ci suuratu Maryam eh, sayidatuna Maryama alayha salaam bis bi ko sun boroom joxe doomam ju tedd jooji di sayiduna Isa alayhi salaam wax na ko ci bis ba ne ko lekkal naanal ba noppi ne ko itam boo demee nee leen damaa woor fa kuli washrabi ne ko it boo àggee ci penc kat gàddu liir bi mbooloo ma nee leen man tey damaa woor eh, wax leen nag liir bi fa quli inni nawartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya bañ ko laajee mu joxañ leen liir ba liir ba daal di wax buñ demee ci téere Sëriñ bi ñu wax nax ju itam dañuy fekk mu naan képp ko woor ci ay caay-caay téye ci sa bopp bu ëllëgee boo dajeek sa borom danga nga dog ci ay ngëneel wa kullu man saama xani razaili fa innahu yuftiru bil fadaili kon koor mooy jàpp sa bopp ci mbir te yàlla rek tax Ah, koor gi ñuy jublu nag benn ponk la ci ponk lislaam yi bu nemee ci hadisu ibnu omar yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne lislaam ñu ngi ko taxawal ci juróomi ponk booba koor da caa bokk buniyal islaam ala xams sart yi tax koor war mooy yan ba ca njëkk mooy eh, doon mag maanaam mukallaf kon gone koor waru ko doonte dees na leen ci tàggat di leen ko jàngaleet waaye bu ñu leen ci fitnaal ndax du warteef ci ñoom sartum ñaareel bay tax koor war mooy ak mën maanaam mëna di bañ a nekk mëna a di nag mënis na caa dugal wopp mënis na caa dugal jigéen ju nàmpal mënis na caa dugal jigéen ju ëmb mënis na caa dugal màggat mu dem ba àttanutul koor lépp day dugg ci mën di ñetteelu sart bi tax koor war mooy bañ a nekk ci tukki bu dagan maanaam boo nekkee ci tukki boo xam ne nii kat mënis mënis na caa wàññi julli mën ngaa leb koor sart yi tax koor wér mooy yan ba ci njëkk mooy nekk ab jullit maanaam nekk ci lislaam donte yéefar yàlla digal na leen koor it waaye ab yéefar bu wooroon te dugg ci lislaam koor ga du wér ñaareelu sart bay tax koor wér mooy koor jot ndax jaamu yàlla bu jotagut boo ko defee du wér am na sartu yuy waral yoo xam ne day boole war ak wér ba ci njëkk mooy amum xel sa am ànd ak sa conscience bañ a nekk ab dof wala ku jinne sadd mbaa yu demee noonu ak bañ a nekk jigéen ju am ngànt léegi nag kañ lañ war a woor yonent bi sallallahu sam wasallam noonu na woor leen bu ngeen gisee weer woore leen bu ngeen gisee weer bu lënd lëndëmee ci yéen ngeen mottali fanweeri fan kon ndax bu ko kenn rek gisee des na sukkandiku ci ak gisam déedéet bu dee ngirum Maalik ñoom duñu sukkandiku ci kenn ñoom ci ñaar ñu maandu la ñuy sukkandiku wala mbooloo mu bari moo xam ne mënuñoo ànd ci euh, wax naka sudut noonu ci la ñuy sukkandiku waaye bu ko kenn gisee ndax dana woor moom ah kay day woor bu fekkee nag da ko gis ba noppi nag di nekk mbooloo ma dana fay bis booba darañ ko ci tegit ay daan donte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sukkandiku na ci kenn woor def na ko benn def na ko sax lu mat ñaari yoon ci net lib Ibnu Abbas day wax ne benn bis dañoo toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am sàmm bu ñëw daan ko man de gis naa weer wi yonent bi ne ko ndax seede nga ne amul benn buur burul yàlla mu ne ko waaw mu ne ko ndax seede nga ne Muhammad yàllaa ko yónni mu ne ko waaw yonent bi ne Bilal yéeneel ne nit ñi bu subaa nañu woor. jaa arabiyun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa fa qaala inni raaytu alxilaal fa qaala atashhadu an ilaha illa allah qaala naam qaala atashhadu anna muhammadan rasulullah qaala naam qaala yaa bilaal azzin fi nnaasi falyasuumu gadan rawaw abu daawud ci nettalib ibnu omar dafa wax ne benn bis nit ñi dañuy séentu weer wi ma gis ko ñëw bi gis naa ko yonent bi daal um wax nit ñi um waaye bu dee ngirum Maalik moom du sukkandiku ci kenn kon ponk yooyu lañ andi woon tey ngir tënku ko ci xikma bi bu ko defee nag lu mel ni jigéen kuy nàmpal ak ku ëmb ak ku màggat yañ war a joxe ci wàllu mudd ak ku kum war a kum warut ak kuñ ko sopp ci moom yooyu day ñëw ci laaj yi eh, nga xam ne borom xam-xam yi danañ ko gën a leeral ndax darul xaj ci xikma bi ak mudd naka lay toll yooyu yëpp mën naa ñëw ci laaj yi ak ci tontu yi